ci dugal ci jomaay mu ne ko yow la te Ousmane Sonko tey bu doon tey Adja Aysatu lay wax ni tey dama koy doon boobu yàlla ne Ousmane Sonko laa joxoon. mais est-ce mooy joxoon kañ lay war doon moo tax bu ñu naan jonko jomaay mooy Ousmane Ousmane mooy jomaay kon am na ci loo xam ne ci baatu Ousmane Sonko la ko yàlla jaarale. Hmm. muy leer te moom mooy gouverner. moom mooy gouverner réew mi. waaw mais lo yow xamoo woon loolu. waaw mais est nee na lu Ousmane bëgg loolu la bëgg lu Ousmane bëgg. loolu la Diomaye bëgg mennum xel mu ñu xelee la sotti ko mu doon benn ñu dugal ko ci benn. ku nekk ku nekk sa xel nag ku nekk xelam nag yaay. ku ne ku ne daaw da nga di xale. <laughs> xam nga wax waxin déggin la laaj amoo baatin déggoo. waxin déggin la laaj. nga nit bul gis li mu mel rek nga foog ne loolu la niru. nga miir peinture nañ ko mu weex waaye xamoo li ci ginnaaw miir ba lu mu doon moo tax ma ne wax ni déggin la laaj borom baatin yaa ngi may dégg. waaw mais xam nga dañ ne Sonko suñu borom Ousmane Sonko la fal. wax Bassirou Diomaye Diakhar. déggoo dama ne. Ah. yàlla Ousmane Sonko la fal loolu la ma suñu borom woon. te bu ma koy wax ñëpp ngi toog ma ne leen jour boobu damaa xëy fajar yeewu woo sama doom. maa ngi koy nuyu de passage mi ngi fii Liberté ma ne ko diw ma ma ne ko wool aana nga ne ko mu génnee saraxu nangam. Ousmane ah, Sonko dama kaa gis deuxième femme am li may wax yàlla moo ma seedal man lu ma am yàlla ma ko gënal ragaluma nit ragaluma kenn man yàlla laa gëm te gëm yonent bi sallallahu alayhi def ko muy sama référence ma ne ko Ousmane Sonko dama gis muy dugg ci pale bi nit mu ngi tëdd ci suuf yor mbuus bu ñuul kukk def ci ay document waaye Ousmane Sonko gis naa ko mu sol jour vendredi te vendredi dafa am lu mu signifié sama dund ma gis Ousmane sonk dugg ci pale bi sol grand bu weex taal sol koppati bu xonq te ak xam nga ne xoppati bu xonq màndargay Serigne Babacar Sy la ak maam Abdou Aziz Sy mm-hmm. Dabakh mm-hmm. Mm-hmm. ma ne Ousmane Sonko dugg na ci pale bi waaye jour boobu lañ ko dugal ci kaso bañ ko dugalee ci kaso bi ca lañ ko dugal ci ci palais ba buntu buntu palais buntu dugg ci pale bi bi mu duggee ci kaso bi la leer wallaay Azim. kon kon kon kon prison moo moo. waral lépp déggoo dama ne. waaw buntu dugg ci président bi. waaw mooy Ousmane Sonko dugg na ci pale bi loolu suñu borom moo ma ko won damay wax te yàlla rek tax te bi ma koy wax ñëpp ak may dégg fu ma ko doon waxee yàlla mi nga xam ne moom mooy sagal mooy jàpp ay fan moo ma mayaat ma toogaat bu fii tey moo koy wax ay nit ñu ngi jàkkaarloo man di ma dégg dama ko gis kon tey ca ëllëg samedi bi xaw ma mardi bi ma toog def révélation ne leen dama gis usmaan sonk mu dugg ci palais bi ñu xëy jàpp Ousmane Sonko dugal ci prison bi. ci ma doon waxal ci baati ne ko ana Ousmane Sonko ba muy wax ak man dafa sëgg sol lu ñuul ku ko tëdd ci buntu pale bi Ousmane Sonko dugg ci biir wane ginnaaw may seen Ousmane Sonko muy dugg ci biir toll naa fi jamono ci jamonoy Macky Sall boobu usmaan Sonko jógagul même bu dee jóg na amul doole mu gis nit ku tuuti jomaay laa gis ma ne leen nit kiy dugg ci pale bi nit ku tuuti borom sikkim la kanam gu sawla boobu man xaw ma kuy jomaay fay yàlla leeral ma ko di ma ko wax te bu yàlla mayee ñu lu ñu bëgg usmaan Sonko dina toog ji hmm? moo tax sunu borom dafa jaarale toogi jomaay yàlla jël Ousmane Sonko soppali jëmmi jomaay mu dugg ci pale bi waaye ci ka ba ci baatinu usmaan Sonko la jomaay duggee ci pale bi parce que Ousmane Sonko moo ne jomaay laa wóolu moom laa joxoon yéen ñëpp xool leen ko sunu borom ne ne ko ñëpp xool ñëpp jël carte yi jox ko jomaay fay mais am am ñu ne bi bi bi Sonko di wax di tànn Diomaye ci élection yi avant ñu dem ci ci élection yi am na ñu ni Ousmane Sonko ñàkk pexe moo tax mu. dëgg jëgal xam nga daaw da man ki xam yàlla laa waxal waaye ki ko xamul waxuma ak moom yàlla am na fu mu toll day wane boppam te du yónnee day wane ne maa fi ne ñi fi nekk ku leen waxoon ku jël ay quarante cinq milliards cinquante milliards def ko arme ne ko ñaf ko ci pale ba. ne damay rey Sénégalais yi dama am pexem tëj seen gémmiñ dama leen di tëj confiné nañ fi ay weer kenn génn ku ku génn ñu dóor la ay liif ba nga màndi nga dem jënd say arm yaakaar ne boo ko defee xoqatal sénégalais sénégalais ni tayle nañ suñu bakkan dénk nañ la suñuy bakkan ñu rey fi ay doomi sénégalais yu bari nag terewul fit yi gën a yokk dëgg gën a taxaw xale yi taxaw ñuy dee yan di yóbbu ñii di taxaw mu mel ni guerre 14 18 yàlla may leen ndam nag yàlla may ñu ndam ne ñii nekkul ci dëgg dinaa leen fi tegg teg fi ñu fi indi dëgg waaye dëgg bala ngaa am la nga ca bëgg sunu borom teg la natt yi metti natt yi nag ñu ngi koy dindi waaye sunu borom dina ko teggi kon c'est pas parce que dañ naan jomaay la sunu borom ci baatin Ousmane sonk la jël mu yëkkati baatam teg ca ne leen jël leen jomaay teg ko fi boobu dañu yaakaar bu ñu làqee Ousmane Sonko jant bi ñu bëri nag ñi fi dee ci mujjantal gi ci gaal gi yaakaaroon ni seen àdduna yàq na parce que ñii bu ñu fol bu ñu faloo dañ leen di rey ñëpp. te ci loolu lañ ju jublu te liñ doon def tout dernièrement mooy wone seen doole far sénégalais yi tàppe seen xol mu doon benn mooy li maam Dabaax doon wax yàlla na yàlla may ko ci àjjanay firdawsi yàlla indi ko teg ko ne ko lii ngay def ni man maa la mën maa la ëpp doole yàlla indi kàddoom teg jël tànkam taxaw ne leen yéen mënoo leen dara sacrifice humain bu nekk def nañ ko fi ba liy xabtal xale ñuy dem ci géej gi loolu da caa bokk mm. ay sacrifice yu ñu def di jël ay nag di ko rey di ko def ci géej gi. yow boobu yow à l'époque est génn nga def naa révélation wax leen ko ne dem jii du neen man amul lu ma fi waxul dañ maa dégluwu rek Macky Sall ci boppam bu ma déglu heure bii li fii ko dal du ko dal parce que Sénégal xam nga lu ñu wax. Hmm. kuy wax wax bu dul dëgg ak koo xam ne da ngay wax loo xamante ni tey da ngay saaga da ngay yuuxu dañ lay déglu. Hmm. mais àdduna wërngal këpp ñëpp dégg nañ sama baat ma wax ko simplicité ba pare ne patt toog. bu ma doon def ni ko ñëpp di waxee ñëpp dégg ma mais man dama koy wax ba pare na dégg topp parce que ci déggaaral moom laa def man dama yor jikkoy Cheikh Ahmad Tidiane Chérif. donc man lépp lu ma def dama koy def ak tekkaaral du ma ci wax yuuxu jamonoy président Macky Sall bi xale yi dafa ay vagues yu métti dem di dugg ci géej gi di dee yow da nga da jàppoon ni ay sacrifice yu xanaa déggoo fii def nañ fi lu ne lu dul tuur ci géejum Ndakaaru gii dëkk bi dal def nañ fi lu ne waaye ñoom ba ñu jëlee seen seeni seeni seen seeni initiative mm-hmm. di jël ay nag yu bokkul melo di ko rey fii géej gi dafa am lu mu laaj ak lu mu bëgg lu bëggul ci la xale yi tàmbalee rakkaaju dugg ci géej gi mel na ñu ñu xabtal te at bu mu jotaatee rek dangay gis dañuy jógaat bu heure bu vague bi jógaatee dañuy jóg parce que lu ñu def ci géej gi la li may wax ku ko xam ku ko dégg moo ko xam waaye ku ko dégg xam ko waaye naka la nit di mën a jëlee askanam di def ay sacrifice bi gën nguur nguur am na ñoo xam ne jaral leen lu ne fii tuur nañ fi deretu ku ne am na ñoo xam ne seen deret nag bu ñu ko fi tuuree ci la ci la ñàkk jàmm am ci réew bi xam na seen deret kenn du ko laalali suuf am na ne sunu borom jombale na sax ñu faatu sunu borom seen jëmm ji du ko tas sax du ko laal kon ñooñu noonu ñu bokk ci ñoom ak li ko ñuru bu ñu jëlee seen jëmm yi tuur seen deret dinañ gis ci réew mi lu ñu mësul gis sunu borom mer indi ak meram teg ci boole ci nag ñu bëgg jël yàlla bëgg toog ci palaasu yàlla yàlla leneen man kenn la man kese la mhm. man boroom kun fayakun man maa fi ne mhm. won leen boppam ne yéen mënoo leen dara man maa leen di dindi nànk ci xolu sénégalais yi mhm. sénégalais yi koo benn liñ naan xëdd voté ndogu jubilé sunu borom def loolu ñu folli leen à cent pour cent bu amul benn werante xanaa yàlla moo mën lii moo xew ci mim réew te loxo loxo Adji Sarr daa nekk ci lii te bu doon sacrifice la ak tour deret moo leen di may toogaat hmm. ak mën a xeex hmm. ak dóor ak rey hmm. kon heure bi Ousmane Sonko keneen ku mu bokkal moo tax sénégalais dama leen di dénk benn yëf rek nañu am patience yonent bi sallallahu dafa amoon patience Jésus Christ dafa amoon patience subir na ñu ne nag waaye patience moo leen may ba ñu triompher ñu yenu seen couronne yàlla yëkkati leen ca kaw waaye yàlla xëyul rek may nit dara. dëgg la yëkkati ko ci kaw te si dara lu nekk mbokk mi dafa ci ligne bi. aywa bisimilah bisimilah salaamaaleykum. salaamaaleykum.